Le Sénégal a accordé à la ville de Thiès par arrêté interministériel numéro 28400 du 22 décembre 2020 portant répartition du fonds de dotation de la décentralisation un montant de 103 67 580 francs au titre de la gestion 2021. L'enveloppe est destinée à la prise en charge des indemnités de représentation de l'exécutif local et à la compensation de certaines charges de fonctionnement liées aux compétences transférées. Les détails des différentes allocations figurent dans le projet de délibération annexé au présent rapport. Les grandes lignes de la répartition se présentent comme suit. C'est les indemnités de représentation, l'éducation, la jeunesse, la culture et les sports, et enfin la santé, l'hygiène et l'action sociale. Tels, Madame, Monsieur, les membres du Conseil de la Ville, l'économie du projet de délibération que je m'en vais vous lire projet de délibération portant autorisation d'inscription de recettes et de dépenses relatives au fonds de dotation gestion 2021. Le conseil de la ville, je passe des visas, délibère. Il est autorisé l'inscription en recettes au budget de la ville de la somme de 103 millions 580 francs représentant les fonds de dotation alloués par l'État. Ces fonds ont impacté les chapitres suivants. Le service 75, dotation de fonctionnement. Donc, on y met la totalité de ces fonds. Article 2, la dite dotation est répartie en dépasse section fonctionnement dans les chapitres et comptes du budget de la ville comme suit. Pour le cabinet du maire, on a les, les indemnités de représentation. Pour les services 441, éducation, jeunesse, culture et sport, un montant total de 57 403 420 pour les produits d'entretien pour un montant de 2 407 200, les fournitures de bureaux pour un montant de 6 996 220, coupes et récompenses et prix pour un montant de 3 millions, bourses et allocations scolaires pour un montant de 20 millions, Participation diverses pour un montant de 20 millions, qui fait qu'on a un total au niveau 25 millions, qui fait qu'on a un total sur le service 441 de 57 403 420. Pour le service 451, santé, hygiène et action sociale, nous avons les produits pharmaceutiques et hygiène, 5 millions. Carburant, 4 864 160 et participation diverse, 25 millions. Qui nous fait donc un total pour ce service 451 de 34 864 160 francs. Le total de ces différents services cumulés donc, nous donne le montant de 103 millions 67 580. Article 3. Le maire de la ville est chargé de l'exécution de la présente délibération fait et délibéré en séance ordinaire de ce jour du 17 avril 2021 on signe le registre des délibérations les conseillers présents pour extraire certifier conforme monsieur le maire de la ville. Mani convention ñu def ak fonds d'entretien routier autonome may 150 ñi ngi Euh, pour un an nit ñi ñoo doon jooy suuf su bëri ci tali yi tey loolu ñu ngi koy am te génnewul ci budget ville kon ah faaw ñu rafetlu diggante boobu ñu am ak feera euh, tali bële aussi ci jaxaw nga xam ne ñépp xamoon nañu ni mu meloon wa FERA bu len sété seetee waxtaan ak Mamadou Faye fa nek mom mo yoron Ageroute fi avant xamna ko bu baax rapidement dañoo déggoo ci def ben convention ñom ñu financer défaru tali boobu financé nañ tamit deuxième tranche pour que ñu agalé buntu base ba rond-point jaxal donc boobu tali boobu mat waye fan yee ci ginnaaw ànd tamit ak ñom pour convention yu bees yu ñu wara def dem nañ fi Medina Fall Bordone Bosco am na tali identifié Balabe dem nañ fofu. diggante ah hein? Wa non dama lay wax fi ñu dem xam nga xam nga fi dem ak ñom la lay wax dem nañu parce que ñom dafa am lu ñu man lu ñuy def Moy par exemple tali yéen yi nga xam dafa yaq. Ñom ñu intervenir ci léegi dañuy def étape par étape xam nga ñëk nañoo def beulé. ci bor beulé il était important que nous développions le Ouest de de l'Antisandisenbop. Après, nous développions le Ouest de l'Antisandisenbop. Au nord, nous avons identifié dans un premier temps les talibans ont vraiment accès pour les pour nous. gens qui ont toujours été nord, nous avons dit que nous avons fait des choses. Après, nous avons dans tambalé Balabé. Nous avons fait des buntu, chemin de fer, et nous avons fait des angles mais buntu départ tamit angle seigne Fallou hôpital régional Nous euh, xam aussi ne randu len am fofu tali yo xamné dafa poser problème dem nañ fofu mais dem nañu euh, euh, sud du stade sud du stade am fa barab yo xamné ne tali gouverneur mom ñep xam nañ mel alors la koy jëm terminus ba promovie la koy defal donc je pense que loolu quand même jaaduna ñu gërëm waa FERA puisque loolu lépp ñun daf ñu waroon ñu waroon di ko génne suñu budget ah te tey jii ñoom ñooy génne li tax ñu defal beneen bi mooy grille avaloir bii ñu sonal ci booru maire bi nii léegi am nañu engagement ferme que balaa Korité inshallah allah mu ñu defar voilà parce que loolu bu doon ñun ñun am nañu sañ-sañu defar ko defaroon nañ ko bu yàgg mais amuñu sañ-sañu defar ko loolu aussi moo ci nekk moo ñu gën a déranger mais mënuñu koo amuñu droit parce que suñ ko jéemoon defal suñ bopp bu fi benn affaire xewee ñun ñooy gàddu responsabilité dafa mel comme defar tribune stade du ku nekk mooy ñëw defar ko parce que su problème amee dafay dafay dafay yàq dafay lu donc loolu ci point boobu loolu laa leen ci bëggoon wax beneen bi saa su nekk daa ngeen dégg ñuy wax euh, li nga xamné euh, président de la république a ko mayone ville de Thiès en 2017 la moitié bi kese Il mu fait 250 millions 250 millions yooyu informé na plusieurs fois ci ay audience publique que ni ministère des collectivités territoriales euh gañi dañ leen a xaliss ñom ci benn jamono ñu am problème ak UCG e, moy ñi jël

ba déggoo ci lu bari parce que nag jàmm gën te déggoo nañ ci loolu euh, am na loo xamante ni waxtu yu may wax ak yéen mi ngi ci seen gafaka leneen li nga xam ne moo war a ñëw ñi ngi compter ci yooyu jéego yooyu ñu doon def ak ci li ñu communes yi nar a jox pour saafara ko mu féete yoon benn boor benn yoon ndax nag euh, jàmm rekk gën na du dëgg voilà information yu daal laa leen bëggoon jox euh, léegi légui, c'est vrai mi ngi may wax pour la pour pour pour pour l'audience édition audience publique euh, au lieu du 30 avril puisque dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañoo ci premier mai Nous avons dañ ñaan ñu différer j'avais moi-même pensé à la date du 2 alors pour le moment on retient le 2 mais ci diggante bi su une date précise comme nous avons koy d'habitude aussi nous avons ay ay invitation y ma le, leen Euh, fanu jàmm kooru jàmm defal leen tawféex yéen ñëpp.